il faut ñuy organiser conférence de presse bi suñu version ñu wax leen ci biir référendum bi li nga xam ne gouvernement bi def na ko lan mooy position gouvernement du Sénégal accusation yi nga xam ne def nañ ko ngeen bàyyi président Macky ci ngeen seetee ñi nga xam ne nee nañu ko mandat illégitime la am mandat bu wóor la am ndax 2012 lañ ko fal te ki nga xam ne moo fi nekkoon président de la république moom nee na lépp aw na ci yoon félicité na ko li ci top élection locale ñi nga xam ne am nañu ci 2014 moo ko gagné li ci topp référendum bi moo ko gagné li ci topp mooy élection du conseil de collectivité du haut conseil de collectivité territorial moo ko gagné li nga xam ne mooy élection législative am na majorité absolue li nga xam ne mooy tamit élection de deux mille dix neuf moo ko gagné ci démocratie mënuloo wax ni man la man la askan bi moo yore baat jox la pouvoir bi moo la fal moo la folli président de la république Macky Sall fu mu nekk place am la te mën nañ wax ne mandat légitime la te mandat légitime la ci plan national mais mandat légitime la ci plan international parce que moom ak président Chine ñoom jiite ñoom ñoo jiitee kuréel bi nga xam ne mooy FOCAC mooy kuréel de coopération entre Chine ak Afrique chef d'état africain yi ñoom ñoo ko fal ñu ne yow yaa ñu représenté ci niveau boobu le kuréel bi nga xam ne mooy Union africaine ñoo ko fal tamit ñu ne à partir de l'année prochaine deux mille vingt deux yow yaay président Afrique Union africaine loolu wone na que am na leadership national et leadership international dañu tuumal force de l'ordre sénégalais yi li ma ci bëgg a wax mooy di ñoom ñi wone nañu que am nañu professionnalisme su du loolu ah defe naa ne lu ñu am ci bilan mënoon noo gën a bari te gannaaw loolu da ngeen bàyyi seen xel su fekkente ne ñu xalaat que am na ñu bare def nañ li nga xam ne dafa euh, jalgati yoon gouvernement du Sénégal dina constituer commission indépendante commission d'enquête nañ fexe ci commission d'enquête yi ñu bare ñu dugg ci mu nekk opposition mu nekk société civile ñu jéem a saytu ci li nga xam ne mooy euh, jafe-jafe yi nga xam ne loolu lañ xam au début du mois de mars deux mille vingt li ma ci mën a teg tekk tamit mooy di euh, wax nañu tamit que liñ fi def force de défense et de sécurité yi war na tax Sénégal.